farsu li ab dog la moom da ci wax sujjóoti alquran yi ndegam noo ngi ci weeru ramadan nu fàttalee ne bu iliman tolloo ci sujjóotu alquran kay jottali du wax ci kaw ne sujjóot day bañ a jottali kay ñooñu nga xam ne ñooy seen iliman bu iliman sujjóotee ñu sujjóot ña sori nag nga xam ne xamuñu lu xew ñàkk gaa sujjóot sujjóotu alquran ba du ca wàññi dara dañuy bañ kay jottali su waxee allahu akbar te néew sujjóot jooj ñu koy aaye mu jottali rek dal ne allahu akbar na mu ko daan jottalee ña sori te xamuñu li ilimaan jàng xam ne ab sujjóot moo ci sës xëy nañu jàpp ne rukkoo la daldi rukkoo te fekk na boobu sujjóotu alquran la kon kay jottali du wax sujjóot ma ne ku wax ak mbooloo ma naa leen sujjóot leen day bañ a jottali rek su ilimaan waxee allahu akbaram rek te bañ koo yëkkati ndegam su ko waxee ña sori dégg ko ilimaan ji itam bu mu yëkkati allahu akbaram bu koy wax ci suuf sëgg ñi koy seen itam wax seen allahu akbar ci suuf sëgg ñi sori nag buñ xamul ne dañuy sujjóot it baax na di ci wàññi dara sujjóotu alquran dañ caa wóote ci ndax àgg na ci sunna wala lu ñu sopp la moom nag dafa dëgëral wax ji wax ni sunna la weesu na ak sopp dong kay jàng alquran moom ci boppam su fekkee ne amee na sarti julli mooy amee na laabug xadas ak laabug xabas sàngan awraam jublu na xibla te waxtu wa si buñu ca naafila ramaluñ ca naafila kon buy jàng ba àgg ci barabu sujjóot ci alquran sunna la mu sujjóot te bañ koo weesu rek jàll daal ñu sib mu bañ a sujjóot te fekk mu am sart yi taxa sujjóot koo xam nag moom jàngut day déglu kay jàng lay tax mu sujjóot mooy dégluwul rek ngir am tuyaabay dégg dafa toog déglu ngir jàng moo xam moo xam daa bëgg la koo koy jàng di ko wax ak waxaat mu mokkale ko ca dégg ga moo xam daa bëgg a man maxaarijul xoroof ndax koo koy jàng da ko man lool moom daal fekkee déglu ko bëgg a jàng moo tax te it kookee muy déglu muy jàng bu doon ci julli mu mat ilimaan ndax góor la gu wér kàllafe na ànd ak sagoom amee mboolem sàrt yi julli yi tax jullee baax kay jàng ci boppam bu demee noonu kookee toog ngir déglu ko te déglu ko bëgg a jàng tax du rek ngir am tuyaaba kon moom moomuy déglu daa ñu sunaal kay jàng bu àggee ci barabu sujjóot ba moom mi koy déglu moom itam mu sujjóot na boroom muxtasar waxee sax moom bu ca sàrt yi dajee kay jàng ci boppam bu àggee ci barabu sujjóot ba te sujjóotut it moom mi koy déglu moom bu ci sàrt yi dajee ci moom moom na sujjóot dañ a faale ci kay jàng ci boppam sujjóot na wala sujjóotut nga seetlu foofu tàggale buñ tàggale tey déglu di déglu rek ngir am tuyaabay dégg alquran ci noppam ak muy déglu ngir bëgg a jàng njàngum mokkal mbaa xam nañu waxe araf ya mbaa xam àtte ya tey déglu ngir am tuyaaba dong moom niñ ko waxee du sujjóot ka ca des rek nga xam ne am tuyaabay kese taxu koy déglu te caa boole kay bëgg caa jàngaale lu ko yitteel ci alquran kooku lañ digal bu ci sàrt yi dajee mu sujjóot sujjóotu alquran nag amul kàbbaru armal maanaam doo wax allahu akbar jàppee ko armal door a waxaat beneen allahu akbar ba ngay sëgg déedéet moom ñaari kàbbar rek lay am booy sëgg wax allahu akbar ak booy siggi wax allahu akbar te sax allahu akbar yi sëgg ba moo mënta ñàkk waaye allahu akbar yi siggi bi moom dañ koo sopp mën naa ñàkk ba tey sujjóotu alxuraan def ci wax asalaamaaleykum barab yi ñu sujjóote ci alxuraan nag day wóote ci gis-gisi woroom ngir yi ak woroom xam-xam yi bu dee ci yoonu al imaam Malik moom fukki barab ak benn yi mu la tuddal rek dañu koy bind ci téere yi warsh yi moom la ñuy sujjóot yu bokk ci ñoom rek deesu ca sujjóot boo tàmbalee ci baqara di wéy fa saarul araaf yam mooy sujjóot bi jëkk bi nga njëkk a jot mujjub laxraaf mooy wa yusabbixoonahu wa lahu yasjudoon boo jàllaatee ba ca sóoratu raxdi baatub wal asal fa la ñuy sujjóote boo jàllaatee ba ca sóoratu naxli yu umaroon a joojee ca la ñuy sujjóote boo jàllee ba ci sóoratul isra xus yoo xam je ca la ñuy sujjóote soo jàllee ba ci saaru Mariam wa bukki yan joojee ca la ñuy sujjóote boo jàllee ba ci sóoratul xajj maayu shaawu ja ca la ñuy sujjóote am na bu nekk ca fa saar way jeexee ca xajj waaye waa maali duñ ko sujjóot yaa ayyuhal lazina aamanu ruk'u wasjudoo joojee waa maali duñu ko sujjóot soo jàllee ca saaru alfurqaan baatub nu fooram ba ca la ñuy sujjóote boo jàllee ca sóoratu namli al-azim ca la ñuy sujjóote soo jàllee ca sóoratu sajda laa yastakbiruun ja ca la ñuy sujjóote boo jàllee ca sóoratu sadd bu anaaba ja ca la ñuy sujjóote boo demee nag ba ca suuratu tafsir temps bu doon ca ca la ñuy sujjoote te bu dee ci yoonu maali la tàmbalee foofu ba kaamil bi jeex amatul sujjoot da nga di gis nag ci yeneen saari saar ni ki najji meeg ak inshiqaaq ak ba ci sax suratul xalaq bu dee ci yenn kaamil yi ñu see def bërëb bi sujjoot waaye bu dee ci yoonu maali daal yii rek la ñuy sujjoot bu àggee ci barabu sujjóot nag te sàtte yi tax a sujjóot yépp daje na ci yow waxtu itam sibuñu ci naafila aramaluñ ci naafila daañu sib nga tey ko bañ a sujjóot su fekkee nag dangaa amewul sàtte yi tax a mën a sujjóot ni ki amewoog laab mbaa sàngoo sa awra mbaa mën laa jublu xibla mbaa waxtoo ci bopp lañ sib ku ca naafila mbaa ñu aramal ko ca kon na ngay tëb jëmmi laaya ja laaya ja nga xam ne moo am sujjóot ba lépp ngay tëb loo tëb rek benn baat bañ la waxoon léegi ne la ba ci àggee ci ngay sujjóot bi jëmmi laaya ja baat boobu nekk laaya bépp ngay tëb bañ koy jàng su fekkee nag nga doon wàcce ab kaamil te bëgg kaamil ba bañ a manqué da ngay bàyyi ba àgg ci waxtu woo xam ne da nga mën a sujjóot nga jàng nag laaya joojee nga xam ne moo amee sujjóot ba te bala nga koo jàng mën ngaa njëkk jàng laaya ji ko jiiru soo ko jàngee ba agsi ci moom daal di sujjóot baamuwaat it laaya ji nga xam ne moo sës ca moom yem rekk ci jàng laaya ji nga xam ne moo amee sujjóot ba jàngoo ji ko jiitu nër laa jàng ja ko topp bëgg sujjóot rekk a tax nga jàng laaya joojee sib nañ ko am lu ñu wax ne jëmbi laay ji jóot mu koy bu dee lépp nga jàng ngir bëgg a sujjóot du wàññi dara lañ sib koy mooy baat ba nga xamee ne boo ko waxee ca la ñuy sujjóote moom rek ca nga yam jàng ko su boobaa daañu sib nga sujjóot di julli julli farata tey ko jàng ca laaya boo xam ne dañ ciy sujjóot sujjóotu alxuraan sib nañ ko doonte sax day jul suba ci bisu ajuma nga xam ne sax na ci sunna ne yonent bi daana ko defit bu dee ci yoonu Malik moom dañ koy sib ndax gis gañ gis waa Madina daawuñu ko jëfe day tax ñu jàpp ne dañ koo man suuxal maanaam naafila nag moom boo koy def tey ko jàng ja laaya bu ñuy sujoote itam du wàññi dara sañ nga di naafila tey ko jàng ca laaya boo xam ne dañ la caa digal sujoot sujootu alquran bu ñu nee sib nañ nga tey ko di jul julug farata jàng ca laaya boo xam ne dañ ciy sujoot boo ko tayee ak nga ñàkk koo tey ñooy moo boo julli rek julug farata jàng ca laaya buñ digle sujoot da ngay sujoot waxoon nañ ne sib nañ nga tey ko def ko waaye nag moom daal jul farata nga boo jàngee laaya boo xam ne dañ cay sujoot sujootal moo xam doonte sax waxtu woowa dañ cay tere naafila mel ne ngay fay jul farata ci waxtu woo xam ne sañu su caa naafila du tere rek boo jàngee laaya buñ digle sujoot sujootal loolu nag wóote naag boo nekkoon ci xutba moo xam jullit ajjuma la moo xam xutba geneen julli la wala nga julleeb néew yooyu yaar moom dañuy bañ boo ci jàngee laaya boo xam ne dañ cay sujjóot sujjóotal quran daal def sujjóot ba da nga daal di dindi nañ nose woon xutba mbaa nañ nose woon julleeb néew ba tax na kon bu doon xutba mbaa muy julleeb néew jàng laaya boo xam ne buñ digli sujoot la it bu mu ko tax a sujoot bu sujootee ndax xutba ba ak julleeg néew ga danañu yàqu am nañu yàqu am nañ ca ak wute ilimaan dee julli julli goo xam ne dañ koy yalu niki tisbaar mbaa takkusaan su àggee ci laaya joo xam ne dañ caa digle sujootal quraan dañ koy wax ne ko yëkkatil sa kàddu biral laaya jooju ba bu laaya ji daanoo boo segee sujjóot ñu xam ne laaya jee tax nga sujjóot su fekkee nag dafa àgg ca laaya joojee te biralu ko bañ xam ne moo waral sujjóot ba mu jekki-jekki sujjóot it say boo ñu topp ko ci rek ca sujjóot ba waaye nag yooyu jamono ko toppul ca sujjóot ba it ndax jàpp ne daa juum du tax suñ jël dara sikk ja bu dee jàng ba àgg ci barabu sujjóot ba fàtte ko nag sujjóotut ba weesu ko waaye lam ko weesoo mu ngi toll ci benn laay rek mbaa ñaar dañ koy wax ne ko faral sujjóot foofee nga toll rek du jar ngay dellu ci gannaaw di baamu barabu sujjóot ba fi nga toll rek sujjóot fa mu daal di doy su weesoo nag barabu sujjóot ba lu bari xam ni ëpp na ñaari laaya dañ koy wax ne ko dellul jàng barabu sujjóot ba te sujjóot doonte sax ci julli farata la nekk it dañu waxoon ne sib nañ ku ko tey jàng ca laaya bu am sujjóot it du tey ñu ne ko weesu nga barabu sujjóot ba dellul rekk jàngaat ko ba noppi nag sujjóot lu may mu dem ba sëgg jëm ca rukkoo ba bu xasee sëgg nag moom jëm ca rukkoo ba dañuy jàpp ne sëñatu sa siggi di dellu ca sujjóot alxuraan ba moo xam farata lay julli moo xam naafila la ba àggee ci barabu sujjóot ba fàtte ko nag sëgg jëm ca rukkoo ba jeex na du mën a dellu def sujjóotu alquran ba bu ñu nee da nga doon julli àgg ca barabu sujjóot ba fàtte ko ba weesoo ko lu bari baamul njàng ma te def sujjóot ba waaye nag boo xasee sëgg jëm ci rukkoo ba moom jeex na jàppal ne raw na la mu ne bu fekkoon ne nekkoo ci farata te nga doon julli naafila daañu sopp dagam loolu rakk bu njëkk ba boo demee ba jëpp ñaareel ba nga baamu nag njàng ma jàng laaye ja nga xam ne moo amee sujjóot ba def nag sujjóot ba ci rakkab ñaareel boobee foofu it am nañ ak wuute ci boo demee ba ci rakkab ñaareel ba ñu ne la baamul laaye ba amee sujjóot ba ca sujjóot ndax boo taxawee rek ci rakkab ñaareel ba laata ngay jàng faatiha ngay baamu njàng ma ca sujjóot am na ngay jàng faatiha ba noppi door a baamu nag laaye ba amee sujjóot ba door a sujjóot foofu am na yaari wax daa mel ni nag jiital faatiha ja ba noppi daal sujjóot mel ne ne mooy gën boo doon julli moo xam julli farata la moo xam naafila la nga jàng nag laay boo xam ne barabu sujjóot la waaye itam fala saar wayam booy topp saar foofu nga war a rukkooyee mel ne laxaraaf li muy gudd gudd soo doon jàng aw saaram fa saar wa jeexe kon barabu sujjóot la waaye itam fa ngay rukkooyee kon kon na ngay sujjóot ba noppi boo siggee nag ba dellu ba taxaw ñu sopp nga baamuwaat dara ca njàng ma bañ a baamu faatiha te baamu nag leneen ci alxuraan moo xam day bokk ci lan faal ba sës ci laxaraaf wala leneen loo jàng rek door a rukkoo ndax dañoo bëgg rukkoo bi topp am njàng loolu nag li mu dal moom du bari ndax bu dee ko topp roba yi bu agsee ci ci laxaraaf yam day sujjóot alxuraan tegaat ca tuut ci lan faal ak ci kama axrajaka dal di rukkoo yi foofa ndax li muy topp roba yi mu ne boo jàngoon barab ba nga xamee ne fa la ñuy sujjóote ci alxuraan nga am yéene sëgg sujjóot waaye nag nga juum far jàpp ci say wóom sujjóotoo Maalik nee na da ngay far jàpp ca rukkoo ba rek jàpp ne sujjóot ba raw na la nga yem ca rukkoo ba rek daal di siggi jàll ci sa julli Ibnul Qaasim ne déedéet ndegam ba ngay sëgg moom sujjóot bi taxoon ngay sëgg dara àgg ci say wóom rek jàpp ca rukkoo waaye rukkoo taxula woon a sëgg moo xam ne nga teg foofee ci rukkoo ba wala jot ngaa si gée sax ci rukkoo ba ba taxaw jonn ñoo ci yemoo moom daal ndegam la taxoon nga sëgg mooy sujjóot bi da ngay jàll rek moom def sujjóot bi xam jooju moom boo ko toppee bu fekkee ba mu jàppee ci wóom ya àggoon na ci ne teg ba dal wala sax demoon na ba siggi door jàll nag def sujjóot alxuraan bi ngir topp ibnul qasim dañ koy digal sujjóot ba'da salaam bu fekkoon nag dafa jàpp ci wóom ya noonee waaye jotut a àgg ci def tekk dal du aajowu muy sujjóot ba'da salaam laay ja nga xam ne moo amee sujjóot ba bu fekkee da nga koy jàng ka jàngaat ni ki niki ñiy wàcce alxuraan jox la ab jukki boo xam ne day na nga jàng ko ñaari yoon mbaa ñetti yoon mu am ca nag laay ju ñuy sujoote yoon wu ne rek boo ca àggee defal sujoot ba kii jàng alxuraan daal bëgg koo mokkal mbaa mu di ko jàngal keneen tax muy baamu laay ja amee sujoot ba di dem ak a dikk muy kiy jàng muy kiy jàngale moom yoon wu njëkk rek bu ci sujjootee mu doy dañ ko wax ne ko yoon wu ne boo ci àggee sujjootal ko waaye ki nga xam ne moom tuyaaba rek la bëgg jukki wu yor nag amee barabu sujjoot boobu tam ni ko jàng ay yoon yoon moom yoon wu ne rek bu ci àggee na sujjoot bu dee ci gis ci suwaa Malik sib nañu nga bég ci li la yàlla defal saxol sedd te nga daal di sujjóot rek ngir sant yàlla wala yàlla teg la aw tiis nga daal di sujjóot ndax bëgg mu teggil la tiis wa woyefal ko bu dee ji gis gisu waa Maalik daal lañu sopp mooy bu la yàlla defalee loo xam ne bépp nga jël nga julli ñaari ràkk gën gaa néew te bañ yem ci sujjóot rek sujjóotub sant bu la tegee tiisit noonu sopp nañ nga daal di gaaw julli gën gaa néew ñaari rakk ndax yàlla woyofal tiis wa bu dee ci yoonu Maalik dañuy sib muy jàngal xuraan di ko neexantal dañu wax nag ne addis ba nee na laysa minna man lam yataxanna bil quraan am benn addis bu ne zayyinu al quraana bi aswaatikum bu ngeen di jàng al quraan na ngeen koy neexal neexal seeni kàddu benn addis ba ne ku dul def loolu boo ci nun maanaam ku dul def loolu wàcc nga sunu sunna waaye nag ñoom waa maal dafa am neneen luñ dégg addis yooyu ba tax na ñoom taamuñu kuy jàng alxuraan di ko neexantal di ko daj teewul nag muy ñoom muy ñeneen maase nañ ci ne kuy jàng alxuraan bu ko dee neexal ak a dajit bu àggee ci yokk ca lu ca bokkut mbaa wàññi ca lu ca bokk mu daldi araam kenn du ko sañ ci jàng alxuraan ba tey ñaar mbaalu ëpp ñaar bokk di jàng fenn ci alxuraan nga xam ne ñoo bokk lu ñuy jàng ni ki ñu bokk di jàng suuratu yaasin di jéema nag yamale seeni kàddu bëgg bokk fu ñuy tàmbalee bëgg bokk fu ñuy daaneele mel ne ku daaj rek ay way loolu sib nañ ko ci kaw sax ba bañ a àgg ci yàq njàng ma ndax léeg-léeg buñ bokkee di jàng dara bokk di tàmbaleendoo ak a daaneendoo mën naa am am ca ñu bàyyi araf mbaa ñu ci yokk mbaa am ñu tëb dara ca lañ doon jàng su boobaam day àddu ci araam du ñu bañ na ñu daje di jàng al quraan kenn ku ne ak la muy jàng bokkut ak la moroom may jàng waaye kon dañuy yemale seeni kàddu balaa ñenn ñu yëkkati lool bay jax buñ dañee tey jàngal xuraan ku nekkub jukkeem la ci gën mooy ku ne woyofal kàddoom ba ba yàqal sa moroom jàkka taamuñu ku ca jàngal xuraan di ko yëkkati ca kaw ndax dañuy bañ loola jaxase xeli ñooy julli jàngal xuraan ci biir jàkka ji te bañ koo wax ca kaw aayewuñ ko wax ka ca kaw itam bala ñu ko aaye ñeneen nekk fa ñoo xam ne mën naa jaxase seeni xel wala ñu gis ne moom da ko bëgg a def aw xewet saxoo ko moo xam da ca yalwaan moo xam yalwaan waaye moom daal da ko bëgg a saxoo rek di ko def di wéy kon sopp nañ ñu aaye ko lu may nag ka tabaxoon jàkka ja mbaa jumaa ja moo digle woon ne na fi diw di toog di jàngal xuraan di ko yëkkati mbaa mu ne na am rek ku fay toog di yëkkati al xuraan kon daañu topp la mu wax moo ma tabaxoon jàkka ji ndax kuy tabax jàkka day mel ne dangaa def ñu wax waqaf te waqaf moom sart bi ci koo ko joxe bu doon buñ sibitam du tee ñu topp ko jàngale xam-xam ci jàkka ja moom yàgg nañ koo def ci njëlbeen ba ci mucc waaye nag bu ñuy jàngale xam-xam ca jàkka ja dañuy yëkkati kàddu yi rek ba ñu soxlaa dégg di dégg ñu bëgg xam di déglu rek bu ñu dee dégg mu doy du dañ gën a bañ nag mooy taxaw ci bunt yi wala ci yoon yi di tari alquran ngir di ko yalwaane dañuy wax ne moom daa àgg ci araam nga xam ne da koy def loo ko yërëm yërëm doo ko sañ a sarax dara ndax da ngay mel ne kon yaa ngi koy dimbale ci lu araam rawante na fa mu taxaw tari alquran ngir bëgg ko sarax muy bëbbu ñàkk set muy biro bi am sobe dañ koo diisal lool